ngeen di xaar wala dafa néew par rapport ak. dafa néew parce que gis nga euh, li nga xam ne madame le ministre annoncé na ko ak ay services am euh, bu waxee déjà traité nañ plus de vingt cinq mille cas nañu wax sur un stock de combien c'est ça l'importance parce que boo xoolee. jàngalekat yi seen lim nu mu toll ak nu mu mën a tamitam c'est des agents de l'État yoo xam ne ñu ngi partout sur le territoire national alors seeni rôle c'était de rester en classe et enseigner mais li ñu gis nag depuis des années mooy que malheureusement jàngalekat yooyu mm. li nga xam ne mooy seen intégration seen avancement seen reclassement seen validation dafa sooxe de telle sorte que jàngalekat bi dafay obligé quitter son millier pour ñëw Dakar fonction publique classement lay seet ñi ne la avancement lay seet ñi ne la validation lay seet tu te poses la question est-ce que administration bi nu mu war a fonctionner ba ñooñu seen préoccupation yooyu qui sont tout à fait légitimes et légales seen préoccupation yooyu naka la administration sàggane ba situation yi am parce que nag quoi qu'on dafa amoon jamono boo xam ne mais l'administration était manuelle mm. te situation yooyu ñuy dund dunduñu ko tey tey tey bu dee joxe nañ vingt cinq mille actes mais nañu wax sur un total stock de combien deuxième question mais quoi qu'on dise aussi nañ ko wax protocole d'accord bi bi ñu koy signé dañ gisoon situation boobu ba tax na ci protocole d'accord bi dañ nii mais dañuy dem vers la dématérialisation des procédures mënuñu tey am la technique et la technologie ba pare de travailler de façon archaïque de sorte que situation yooyu dafa ñëw tege depuis des années au niveau de la fonction publique kon nag d'accord effort def nañ ko parce que nag bu ñu defee effort nañ ko reconnaître mais li solution définitive moom la ñu bëgg te solution définitive boobu waxoon nañ ko ci protocole bi bi ñu koy signé mooy la dématérialisation des procédures or loolu ba léegi ministère bi quand même defu ko. waaw man li ma bëggoon a xam. ndax yaa chaque fois yaa ngi wax protocole. Mhm. protocole bi. lan ngeen signé woon. Mhm. lan la gouvernement bi def ak lan la deful ba tey ngeen ne da ngeen def débrayage. très bien gis nga li ñu def lan la gis nga boo xoolee lii tudd indemnité de logement gouvernement bi dafa am échéancier yi mu waxoon à chaque période dina def lii loolu naam def na ko. Mhm. mais liñ ci gis ci defin wi aussi. am na beneen problème boo xam ne xamuñu woon noonu lay présenté wu parce que li nga xam ne dañ ko joxe ci main droite ba pare récupérer ko par la main gauche muy un système d'impôt dont ñoom ñëpp même xam nañ ne ni ñuy imposer problème la parce que jàngalekat bi nga xam ne dañ ko xaarloo pendant quatre ans cinq ans mu am trois millions et quelques mu gis ni montant bi plus son salaire c'est trois millions et quelques. Mm. mais le net à percevoir c'est un million trois cent et pourquoi parce que dañuy ni système impôt bi moo indi loolu même indemnité logement boobu biñ ne dinañ ko indi à cent mille mais bu ñu dugalee premier échéancier bi on s'est rendu compte ñi dem salaire ñu bëri ci ñoom sax waxuma la ñu gis augmentation bi mais seen salaire sax dafa baissé kon situation yooyu moom la gouvernement bi teg beneen élément bi nga xam ne quoi qu'on dise respecté nañ ko mais à moitié encore mooy les passerelles professionnelles bi ñu paree protocole bi rek gouvernement bi organiser concours bi te concours bi annuel la. mais benn yoon boobu lañ ko def. defaatuñ ko passerelle professionnelle mooy. Hmm. jàngalekat bi nga xam ne. bi muy dugg ci fonction publique mu ngi ci duggee ak licence. Hmm. mais entre temps malgré le fait que mu ngi jàngale mu ngi jàngaat aussi ba am maîtrise kon xam-xamam yokku na mu ne kon niveau bi ngeen ma recruter woon dama bëgg def benn concours jàll ci beneen niveau parce que sama diplôme may na ma loolu. Hmm. donc loolu ñu d'accord ko. Mm. mais loolu benn yoon la ñu def concours bi defaatuñ ko. meneen aspect bi mooy ci lu mu respecté mooy commission paritaire yi commission avancement yi quand même tenir nañ ko mais biñ ko teniree aussi li ñu ci gis mooy tenir commission bi ba nee Massamba jàll nga mais depuis lors kenn amul les projet de ces de, de ces gens là maintenant yan poñ la ñu laalul complètement mais boo xoolee tey système mu payoor yi agent yi nekk fonction publique mais njiitu réew mi moo taxaw suñu kanam ne ñu yéen a wax dëgg ni ñu tabaxee système de rémunération des agents de la fonction publique normalul lu normalul nag dañ koy corriger man d'accord naa ñu corriger ko parce que cabinet MGP Afrique def na étude bi mais man mii njiitu réew mi jël na inspection générale de l'État mu def la même travail et on a abouti à la même conclusion donc il faut ñu corriger ko kon ci foofu lañ koy xaar donte encore euh, ci situation euh, sociale ou financière boobu. impôt moom kenn mënul wax et même gouvernement bi reconnaître na logiciel tunisien bi ñuy utiliser pour les impôts mais c'est un boo xam ne ñoom sax maîtriser wuñ ko moo tax situation bi taxawee de cette façon la mais tey boo jëlee aussi li nga xam ne mooy les sortants du CNEPS de Thiès éducation physique nga xam ne dox nañu def nañ grève de la faim pourquoi parce que benn décret rek la ñuy xaar. Hmm. bu créer le corps des PCMG en EPS. te boobu décret bu ñu ko tegee day permettre ñu reverser les MEPS dans ce corps la et ensuite ñi nga xam ne ñoo fa nekk en formation mais formation dafay am ñu admis ak ñu échoué mais ñoo ñooñu admis pour que ñu démarrer même la deuxième année c'est un problème waxatuma la ñi échoué donc situation yi tege sur la table pour le secteur de l'éducation nañ ko wax pour la vérité c'est des situations extrêmement difficiles de ah syndicales yi bu ñu toogee nii noppi mais day mel ni nous sommes complices. fu ñu fu ñu pour ñu natt euh, mu mu mu am solo day day baax ñu leeral leen parce que daaw dafa wax. Mhm. protocole d'accord lu ñu ci def ak lu ñu ci deful ba tax ngeen tax a di waxaat. Mhm. mais ce serait bien également nit yi xam ñaata point moo si noonu la ñuy mën a xam ah mhm. def nañu juróom. des na set wala def nañu set des na temps. ñu xam ñaata la foofu la nit yi di mën nattee mais su ngeen nee ñu nii rek. protocole d'accord bi lii des na. lu ci ëpp dañ koy faral di dégg. on n'a pas l'impression que lu bees euh, am na solo parce que euh, xam nga damay dégg kenn mu naan 32 points la ñu amoon. ce qui est totalement faux. gouvernement au Sénégal lu ñu tënk ak ñoom 11 points la sur les 11 points tey y a que points laa mun a wax ni quand def nañ ci effort. dañ ci def effort matérialiser wuñ ko complètement ci trois points yooyu wax naa leen indemnité logement bi ci la bokk donte li ci tege kenn xaaru ko woon muy impôt bu kenn contrôlé wul te ñu ngi leen di xaar parce que dernier échéancier bi fin du mois bi la mais di ngeen dégg ni dolli nañ 15000 francs mais man interpellé woon naa le directeur de la SOL ne ko j'espère que li ñu dal ci seen premier échéancier bi xëy na dernier échéancier bi du ñu dal. Mm. mooy joxe ci benn loxo. jëlawaat ko ci beneen loxo ñu ngi leen di xaar fin du bi beneen poñ bi nga xam ne man gis naa ni se matérialisé mooy la tenue quand même des commissions paritaires maanaam commission d'avancement yi tenir nañ ko beneen aspect bi mooy mais même lanteur administrative bi yooyu ñuy wax mais def nañ ay guichet unique te dañ ni guichet unique bi dañ koy institutionnaliser ñett yooyu def nañ ko mais yu ñu deful yan la mooy yi nga lim sànq yi ma lim sànq yi moo gën a moo gën a bëri ci onze yi daan maanaam trois moo ci am lu tane te des na leneen lu am solo mooy di euh, ministre Cheikh Kanté moom mooy su chargé du suivi du monitoring des accords kooku la ngay wax ni yëpp xanaa jébbaloo leen ko justement xam nga ministre Cheikh kante dañu tase ak moom tasewaat ak moom def ay réunion sectorielle ak les ministères mais aussi dëgg rek moo neex yàlla lui en tant que président du comité du monitoring. Mm. li mu man rek mooy indi organisation yi yi war a discuter ak gouvernement bi convoquer le ministre concerné dans son domaine ñu wax teg sauf que nag la problème mooy mbir mi nekkatul di wax teg. mais da ngay wax matérialiser je donne un exemple bi ñu rencontré ministre du du du du budget mais dañ évoqué ak moom question wu impôt yi. Mm-hmm. ni mu diisee. te ci rencontre boobu le contrôleur du budget wax leen d'accord naa li jàngalekat yi wax c'est la vérité système impôt yi quand saa nu nous pose un problème xam nga loolu c'est un beneen aspect bi mooy évoqué nañu ak moom la question du DMC ñu ne dañ koy externaliser yóbbu ko benn banque mu koy jël rab c'est-à-dire poñ yooyu ñuy jël yëpp buñ ci waxtaanee ba teg sur la table foofu ñu tege foofu lay des te loolu je crois que bu ñu toogee rappeler les choses mais le ministre en question doit se réajuster pour xool lu mu war a corriger mu corriger ko mais malheureusement loolu moo amul je donne un autre exemple tase nañ ak fonction publique quoi qu'on dise mhm. mu nekkoon quand même réunion bu jafe bu xaw a tar entre ñun ak la fonction publique parce que nag situation di jàngalekat yi di jànkonteel yépp surtout fonction publique moo ko indi li tax ma gëm ni moo ko indi mais jàngalekat boobu nga xam ne dama yàlla baal dafa génn àdduna dara pourquoi parce que yéexaayu système bu nekk fonction publique tax na moom waroon na nekk fonctionnaire depuis nekku ko jàngalekat boo xam ne dafa feebar wala famille am fee am ku ci feebar mu war ko jël en charge parce que dafa war a am lu ñuy wax imputation budgétaire mais bu nekkul fonctionnaire du aux lenteurs administratives du mën a am imputation budgétaire donc c'est des situation yoo xam ne dafa tegee ñu waxoon ministre bi na teg sur la table bi ñu waxee processus de dématérialisation mais lan la ci def pour que loolu am mais madame la ministre j'ai beaucoup de respect pour elle mais elle n'était pas en mesure de boobu mu jeexee xam naa peut-être am na liggéey bu ñu def fonction publique ba tax à la dernière rencontre am yu ñu annoncé ñu rafetlu ko muy ay at yu ñu publier mhm. yu xaw a bëri wane ni ne déjà par rapport à ces la là dinañ def benn caravane mu dem dans les régions et les départements pour recueillir les dossiers wax ni aussi dans le cadre de la dématérialisation nañ fexe ba IAAY ak IEF yi am des scanners nga xam ne dossiers yi léegi dootu ñu jaar par la voie physique mais plutôt électronique li li li xaw tey lu waroon mun a ñàkk la parce que protocole d'accord bi ñu koy signé le 30 avril 2018 nous sommes en 2020 man yaakaaroon na en tant que secrétaire général du SAEMS tey bu ma taxawee devant les Sénégalais leneen laay wax lu dul protocole boobu parce que nag dafay yàggoon trop au Sénégal ñuy wax le non respect des accords te non respect des accords nag nañu xool en bon citoyen sénégalais quelle est la part des enseignants dans ça et quelle est la part du gouvernement je sais que bu ñoom boo leen signé protocole mais ñaari parti ku nekk dafa am loo xam ne askan bi daf koy xaar ci yow muy nga def li nga wax ñun de notre côté bi ñu signé protocole mais ñun dem nañ école on a continué les enseignements apprentissage on a fait les évaluations on a fait les examens tout s'est correctement passé de 2018 à aujourd'hui mais bu ma taxawee nag nee leen ci 11 points. trois yooyu réalisé nañ ko mu des euh, je crois bien euh, euh, sept ou ou ou huit. c'est ce problème là qui se pose à mais sëñ bi seen. Mhm. yow bu ñu bu ñu leen bu ñuy dégg. dafay mel ni enseignants yi rek ñoo am problème alors que enseignants yi rek du ñoom ñoo nekk fonction publique. Mhm. parce que fonction publique quand même médecin yaa ngi fi magistrat yaa ngi fi ñeneen a ngi fi. Mhm. mais chaque fois enseignants yi rek la dégg. est-ce que c'est parce que ñoom ñoo ëpp problème ñëpp. wala ñoom dañoo dàq kaas rek. très bien mais gis nga en général dama amul di ci sabaru jàmbur. li nekk au niveau de la santé waa santé xam nañ ko. li nekk feneen xam nañ ko ñun nag dans le secteur de l'éducation je considère quelque part que am na lu ci normal pour la bonne et simple raison dans la fonction publique sénégalaise bu ñu nekkee cent vingt mille agents les quatre vingt dix huit mille sont des enseignants donc soixante dix pour cent des effectifs sont des enseignants et ces enseignants là sont victimes d'une injustice qui est là bu ñëpp gis je donnais toujours l'exemple boo jëlee la masse salariale sénégalaise qui est de 635 milliards les enseignants qui constituent 70 pour cent des effectifs en consomment moins de 12 pour cent ça aussi c'est la vérité que personne n'a à partir de ce moment je que ku wax mais da wax par rapport à ta situation je te mets exemple mais gis nga bi ñuy wax le système de rémunération mais ci la médecin yi le président de la République